méthode bi euh, bi bi ñu bees ñi di utiliser. Mhm. maanaam xët-xët xëccoo jaay fermeté est est noonu la war a dox dëgg la état dafa war a ferme sur certaines questions. Mhm. mais loolu dafa war a nekk en dernier lieu. mais booy soog a ñëw est ce war a privilégier waxtaan la diplomatie. non effectivement man dama privilégier dañu war a privilégier waxtaan effectivement la diplomatie waxtaan. Mhm. loolu la priorité je pense que Bassirou Diomaye Faye président Bassirou Diomaye

dañu dialogué du ñëw rek génn nit ñi comme ça. mais ni ngeen di doxalee est-ce que amul ni ngeen di doxalee est du du du du du bloquer euh, l'économie maanaam. yëf yi gën a metti parce que boo seetloo ci transport bi. Mhm. Euh, jël ngeen benn décision bu ferme. Mhm. Sénégalais yi kontaan. Mhm. mais les transporteurs am na lu ñu leen guuxal ñu ngi xaar le bon moment. Euh, gis nañ aussi que ne avec les meuniers c' est la même chose fermeté ngeen ci wane. gars bàyyi nañu malgré eux. mais maanaam ay fële yoo xam ne mën na couver ci suuf euh, xëy indi leen problème xam du ngeen xam fu ngeen koy waxee. mais Mamadou gouvernement tamit dafa war a ferme quoi. mais ko teg yoon ak ci loi na nga ko moom moo fi waratul am. mooy mooy lan chantage. ah oui le secteur privé. waaw dañu tàmmoon yor réew ah, ñoo yor dañu tàmmoon di chantage nit ñi loolu yooy yooyu yooyu tamit léegi rupture la ñu wax. Mhm. am na yu bëri yoo xam ne léegi dootuñu ko nangu. c'est comme les les les les les ambulants li ñu doon def noonu bon ñun ñoo leen fal donc li ñu bëgg la ñuy def et cetera. mais c'est parce que aussi yéen a yéen a yéen loolu amatul loolu loolu Mamadou la xeex. loolu loolu la ñu bëgg mu jóge fi Mamadou loolu la bëgg mu jóge fi chantage yooyu fi amoon quoi dañuy def lii parce que ñoo leen fal et cetera ñu dañu bëgg changer rupture la woote donc yooyu yëpp dañu bëgg mu jeex mais lépp lu ñu def rek li ñuy privilégié rek mooy waxtaan mm-hmm. waxtaan pour mën a am ay solution pour mën a